ay tijaan lañ waaye amuñu sëriñ ci mbedd lañuy gàggantikoo ñooñu ay jax-jaxal la def ci ñoom te ñoo ko ci jub xam nañ ni li ñuy wax du dëgg mais xam nañ ni am na ñoo xam ne si mën nañ leen ci jàpp euh, ay point yu bari nag laa noté woon dama ni woon oustaz Malick Mbaye Bollé defal ma benn audio nga waxal ma nga indil ma yi nga xam ne si moom lañ wax ci procès bi yëpp parce que dama cee bëgg a indi ay tontu benn par benn waaye tey ojo Umar Mbay bi tax na yooyu yëpp dama koy bàyyi ba ci kanam parce que waxtaan wi li ma Umar Sey di wax ni euh, buñ koy mën a gàttal di ko def ay quinze minutes ay dix minutes loolu laa bëgg a essayer maanaam waxtaan wi dama koy def ay numéro maanaam bi mooy numéro un bi benn point dong laa ci wax bu ko defee numéro deux bi ma indi beneen point kon ñu déglu lenn ci waxu Umar Mbay lii muy lii muy dëkk wax nii nag xam naa ci deuxième deuxième audio bi koy tontoo ngeen déglu. xam nga lu tax ma ne dañoo tooñ. maanaam dafa wax ni maanaam mbokki tijaanam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni euh, unsur axaaka zaliman aw mazluman maanaam sa mbokk bu maanaam bu fekkente ni dafa tooñ da koy tere tooñ xamal ko ni ko yaa tooñ léegi nag loolu la bëgg wax ni li tax mu ni tijaan dañoo tooñ Omar Sall. ñoom mënuñoo saxal mukk ci alquran wala ci sunna na yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jàngale tudd yàlla ci benn baat allah allah loola mënuñ koo saxalee ci alquran mënuñ ko saxalee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag tey nag dama leen ci dolli loo xam ne nag lu yéeme la waaw euh, wax nii kooku moom du ma ci tontu du ma ci tontoogul kooku ci deuxième bande bi laa koy tontoo lim ni baatu allah allah bi ñuy wax mënuñu koo saxal ci alquran mënuñu ko saxal ci sunna xam nga lii la wax ngeen di dégg léegi nag kon nag boo indee fu mu saxee ci alquran saxe ko ci sunna yaakaar naa kon bu ci jotee dana am honnêteté bu bu toll ne xam ni ni man maa waxoon ni kenn mënta indi fu mu saxee ci alquran ak sunna tey nag euh, Mouhamed Lamine Sall indil na ma ko. te loolu moom lay indi ci ñaareelu audio bi bi nga xam ne si moom a ëppal importance nga xam ne si moom laa bëgg jëkk ci audio bi nag mooy lii muy bëgg a wax. dana bari tiijaan yoo xam ne danañ dar seeni nopp mooy ne mënuñu koo saxalit mu jógee ci cheikh mi nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ topp waaw cheikh mi nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ topp saxal ne. cheikh daf leen jàngal ne xadaratul jumaa na ngeen fa dajee di wax allah allah allah allah mënu leen koo saxal te nag loolu du man may toog nii rek wax ko waaye dama koy saxalee ne dama koy saxalee ci waxu seen mbokki tiijaan yoo xam ne ay kàngam lañ ay kuy lañ ci tariqa bi seen wax laay saxalee ne même ci tariqa bi toog naan allah allah bidaale ci biir tariqa bi dëgg la da dar seeni nopp waaye li may wax nii mooy dëgg bala ñuy dar suñuy nopp yaakaar naa ojo bi dégg ngeen ko léegi foofu dañ ciy leeral euh, Omar Seye kii indi na firnde ni indi na firnde ni sharia bi tariqa bi ak sharia bi ñoo lënkaloo benn mun benn du dem bàyyi morom ja képp koo xam ne yaa ngi ci tariqa tijaniya yaa ngi ci sharia islamiya kooku moom parce que tariqa tijaniya fondement bi ci boppam mooy sharia islamiya moo tax ñu nuroo lépp xam nga mi ngi indi euh, loo xam ni man sax dinaa ko euh, maa ngi sàkk mu wax ma loolu ci ban téere la nekk kooku moom waaye nag damay jàpp ni am na ci téere tariqa bi ci waxee noonu bu fekkente ni loolu indil na ci ab téere te maa ngi ko koy laaj téere bi mu nekk kooku nag day wane ni tariqa tijaani moo sharia islamiya bi nga xam ne si moo ko meññ lii nuroo moom mi ngi indi ab wuute maanaam sharia islamiya ñaata ñaata wuute ci nekk eh, xam nga boo demee ci ci ci ci ci téere yi dañuy wax ni ngénte maanaam li ñuy wax aqiqa sunna la moom la ñuy wax mais boo demee ci mazhabu abi xanifa neena bi biddaa moo tax Mouhamed Mawlud Fall di wax wa yundabul aqu bi yowmi saabi'i wal xanafiyu indahu lam yushra'i ci mazhabu abi xanifa nee na ngénte biddaa la kon wuute bu am na ci sharia boo demee ci mazhabu imaam Ahmad ibnu Hanbal boo jàppee ba pare lekk yàpp gileem ak ñenn nee nañ boo lekk yàpp giléem sa njàpp xëj na te loolu amul ci Malik amul ci Shafii amul ci Abu Hanifa moo tax euh, mu wa ra'yu qawmin minhum ibnu Hanbali naqdu lwudu bi akli laxmil ibili waaw euh, aywa boo demee Arabie Saoudite bu ñuy naafila bu ñuy naafila naafila koor wala ñuy def bu ñuy def taraawix dañuy xunuut te xunuut nag xunuut moom ñoom ñëpp xam nañ ni loolu ab bidaa la te am na ñoo xam ñi ngi koy def ni tax ñi di ko def parce que dañ ko dañ fa am ñoo xam dañ ko rafetlu li ma bëgg a rek mooy ni sharia bi amee ay amee ay wuute noonu la tariqa bi amee ay wuute léegi nag moom wax na ni euh, wax na ni saxul benn yoon ci tariqa bi fu Seexna Ahmad Tijaan Chérif digle fu mu diglee allah allah ci xadratul jumaa moom wax na loolu léegi nag bu fekkente ni téere biñ koy laaj indi na ko ni Sayyid Arab Ibn Saih wax na ko wax ni am na ci kàngami tarixa bi ñoo xam ni wax nañ ko ñun waa Sénégal ñi koy def ñiñ ko jëlee ci ñoom ñoo ñoo gën a wér ci ñun euh, Ibn Arabi Ibn Saih ñoo gën a wér ci ñun ci ñun képp ku dul Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Sidi Hadj Malick dafa ni wa yaqra'u al-waahidu ba'da al-'asri fi yawmi jum'atin bi kulli 'asri kalimatu laa ilaaha illa Allahu aw Allaha Allaha kilayhima rawaw moom nee na amul ci sax Cheikh Sidi Hadj Malick nee na loola soloo nañ ko ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif كلمة لا إله إلا الله أو الله الله كليهما rawaw te nag maanaam kàngamu tari koo mën a indi ci tariqa bi bu wuuteeg Sidi Hadj Malick ci ñun ñi nga xam dañuy wax allah allah dañuy bàyyi wax boobu topp waxu Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu boo demee Mouhamad Fatha ci yaqutatul farida dafa ni وهلل بعيد العصر في يوم جمعة إلى مغرب لنيل ساعة وصلتي maanaam na ngay def sikkar laa ilaha illa allah gannaaw tàkkusaanu àjjuma ba jant bi sox bi haylalatin aw fardin bi haylalatin aw fard dinaw bihimal zama bi haylalatin aw fard dinaw bihimal zama li maxwi siwa fardan bi qahrin wa sitati nee na na nga def laa ilaha illa allah wala nga def allah allah wala nga boole laa ilaha illa allah ak allah allah kon fi mu wax ni fi la gisee ni maanaam loolu bidaa la am na ñoo xam ne si ñun ñi ñu waxal ni loolu du bidaa soloo nañ ko ci seen Ahmad Tidiane Chérif ñooñu lañ gën a gëm parce que ñooñu lañ xam Seydi Hadji Malick nee na moom كلمة لا إله إلا الله أو الله الله كليهما رواw Mouhamad Fatha an-Nuzayfi moom nee na bi haylalatin aw fard bi haylalatin aw fardi naw bihima alzama laa ilaha illa allah ngay wax wala allah allah wala nga boole leen aywa gannaaw loolu Sidi Hadj Seydina Ahmad Tidiane Chérif moo yar cheikh Mouhamadul Ghali loolu yéen ñëpp xam ngeen loolu cheikh Ahmed Tidiane Chérif mooyar yar cheikh Mouhamadul Ghali kon nag cheikh Mouhamadul Ghali lu doon def rek jàpp nañ ni cheikh Ahmed Tidiane loolu doon def waaye nag cheikh Mouhamadul Ghali moo yar cheikh Umar Fouti kon nag cheikh Umar Fouti lu mu def dañ naan naar bu ndaw lépp lu mu wax ca berkelle ba la ko déggee. kon Cheikh Umar Fouti lépp lu mu wax mi ngi ko jëlee wóor na ko wóor na ko ni Cheikh Mouhamadul Xaali lii la daan defee Cheikh Mouhamadul Xaali lépp lu mu daan jëfandikoo mooy la Cheikh Ahmad Tidiane Chérif daan jëfandikoo loolu nañ d'accord ci loolu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moo yar Cheikh moo yar Cheikh Mouhamadul Xaali Cheikh Mouhamadul Xaali moo yar Cheikh Umar kon nag lépp lu Cheikh Umar indi rek dañu xam ni ci Cheikh Tidiane la jóge ndax ki ko yar. tàggat ko ci tariqa bi moom mu Cheikh Tidiane ko yor te Cheikh Omar radiyallahu anhu ba mu dajeeg Cheikh Mouhamadul Xaali ba ñu àndee aj Màkka jëm Madina Cheikh Omar daf ko ni Cheikh Mouhamadul Xaali euh, maa ngi musul ci yàlla waaye ba ba ñuy àgg Madina jàppe ma ko weddi tariqa bi Cheikh Omar di diingat Cheikh Mouhamadul Xaali di di di leeral Cheikh Omar nag lii wax ci rimaax. wa min al adkaari allaazimati liltariqati dikru alkalimati almusharrafa bitamaamiha bacda casri yowmi aljumucati wa huwa laa ilaha illa allahu aw aldikru alfardu wa huwa allah allah allah bilisbaati min gayri nafi Cheikh Omar loolu la wax mu tekke ni wa in shaa'uu yadkuruuna alkalimata almusharrafa bitamaamiha min awali aldikri ila axirihi aw yaqtasiruuna ala dikri lfardi min awali dikri ila axirihi aw yabtadi'uuna bilkalimati bitamaamiha wa yaxtimuuna bidikri lfardi wa ala ayi wajhin min hadihi lwujuhi dakaru ajza Cheikh Umar mi nga xam ni moo jële ci Cheikh Mouhamadul Xaali mu jële ci Cheikh Cheikh Ahmad Tijaan Chérif moo ni bokk na ci zikkar yi nga xam ni si moo taqoog tariqa ci Ahmad Tijaan Chérif mu di ci laazim mooy zikrul kalimatil musharrafa tudd baat bu tedd bi ba mu jeex ñu wax laa ilaha illa allah awi zikr awi zikrul fard wala boog nga tudd ko baat turam gu wéet bi ni allah allah allah nga xam doo ci indiwaale benn na fi Cheikh Umar teg ci ni radiyallahu anhu bu leen neexee ñu tudd laa ilaha illa allah képp ca commencement xadara ba ba ba ñuy jeexal comme ni ñuy def fii ci kër Sëriñ Abbas aw yaqtasiruuna ala dikri fardi bu leen neexoon neexee nag ñi yem ci allah allah allah ca commencement xadra ba ba ba ñuy jeexal bu leen neexee yabtadiuna bil kalimati bi tamaamiha wa yaxtibuuna bi dikri fardi bu leen neexee nag ngeen def laa ilaha illa allah ci commencement bi waaye ca mujj ga ngeen def allah allah Cheikh Umar teg ci ni wa ala ayi wajhin min hadihi alwujuhi dakaru ajza anam bu mu leen neex ci anam yii ma wax laa ilaha illallah képp wala allah képp wala laa ilaha illallah mujj allah nee na bu ngeen ci def rek baax na waaw ñun nan la ñuy jëlee wax bu jële ci cheikh Umar mi nga xam ni mi ngi ko jëlee ci cheikh Mouhamadul Ghali moo ko yar xam ni mu daan def cheikh Mouhamadul Ghali jële ci cheikh Ahmad Tidiane Chérif wax boobu nan lañ koy remplacer beneen wax ñun ñun senegal mi nga xam ni Cheikh Umar moo indi Sidi Hadj Maalik tasaare ñoom ñaar bu ñu dëppoo ci dara ni ko Cheikh Umar waxee noonu la ko Sidi Hadj Maalik waxee kilmatu laa ilaha illa allahu aw allaha allaha kilayhima rawaw Sidi Hadj Maalik ne benn bu ci nekk solo nañ ko mu am Muhammad Fatha an-Nuzayfi moom bi haylalatin aw fardinaw bihima alzama li maxwi siba fardan bi qahrin wa satwatin nee na neen laa ilaha illa allah wala nga ni Allah wala nga boole leen Cheikh Umar wax lii kon ñun même bu fekkente ni wuute am na maanaam bu ñu indilee téere laa wax de li mu wax bu bu indee téere bi ni mu ko waxee demewul noonu waaye bu yàlla dogalee ni mu ko waxee mu demee noonu lañ koy jàppee comme wuute bi am ci fiq bi muy lañ waxoon ni sharia bi ak tariqa bi tur la dañoo tudd tariqa rek maanaam tariqa bi mooy yoon woo xam ci ngay jaar pour mën a du dundal sharia sharia ab géej la euh, xaqiqa mooy kambootu or yi nekk ci biir géej tariqa bi nag mooy gaal yi nga xam si moom ngay war dugg moom ci biir géej pour dem ci kambootu jama ak or yi nekk ci biir xam naa dañ koy yemale fii bu ko defee buy indee ñaareelu audio bi nag gën a dolliwaat leeral ci jaxas bi mu indi jaxase indiwaat tim indil la nag lim wax ni allah allah saxul ci alquran saxul ci sunna loolu daal lañ ci digal léegi daal ñun kurul Sidi Hadji Malick du Cheikhu Umar ñun waa Sénégal waruñoo jël beneen wax ci tarixa bi di ko di ko jëfandikoo di bàyyi waxu waxu Cheikh ma ak waxu Cheikh Ahmed Tidiane waaye ñi ngi ñaan Oustaz Oumar mbay nag lii mu lii mu jàng ci ojo bi nañu indil téere ba mu nekk indil ñu nas bi bu ngeen gisee téere bi ni mu ko waxee du demee noonu fi daal la ñuy yem wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ba ca numéro ngeen xaar numéro 2 bi nag.